gars yi ñu ziar leen bu baax a baax procès boobee doon amee fële ca tribunal bu Dakar moom lañ bëgg andi ay leeral yoo xam ne yu am solo la nag ndax ñu bari àtte bi daanu na waaye xamuñu sax maanaam lii nan la ak fu mu jógee ak fu mu jëm loole tamit jart na ñu xam xam yow mi may door topp nga def li nga xam ne mooy sab abonnement ah, ci li nga xam ni mooy YouTube bi nga ne bu dee TikTok bi la tamit mën nga koo dàbbar ñi ndax Ousmane Sonko ku sell ki gars yi daan nañ ko maanaam ñaari atu kaso yoo xam ni séngam la ah, da koy tëdd kaso ñaari at yooyee nag pour mu leer ñi nga xam ni ah, comprendre bu baax a baax juge bi daan na ko ñaari at yoo xam ni da koy tëdd kaso ah, baneen bi mooy da ngeen di laaj lu mu ko ah, daane ak lu mu ko lu mu tax mu daan ko loolooy mais viol bi teg nañ ko fële maanaam Ousmane Sonko comme niñ ko doon waxee bis bu ne musutoo violé kii ji Adji Sarr kon loole te féete na boor laneen liñ ko toppee mooy maanaam jàpp ni moom mii kat maanaam xale bu ndaw bu mu doon naxtaan maanaam ba yóbbu aw fitam Ah, daanaka loolee la ñu jafandu ni moom lan ko daanee ñaari at sëngam loole tamit yéen am ngeen ci seen xalaat waaye loolee rek mooy li génne tribunalum ndakaaru ndax lépp loo xam ne information la bu dëggu tëwér war nañ leen ko indi tëdd ci njaaxaanaay nag amul fun ci for ak fun ci dul for waaye jàpp nañ ci benn xalaat nit ki bu fekkee toppee nga ko viol maanaam viol bee ba mujjul sotti Ah, manoon nga koo bàyyi mu dem këram sama xalaat la nag loolu ah, bokkut ak daray information yi damaa xalaat ni maanaam li nga ko doon toppi dëgg-dëgg tam tax a jóg su fekkee loolee sottiwul man nga ko taxañaat yóbbuwaat ko këram mu dem ñibbi ci xalaat bu ma ah, defal sama bopp loolee concerné ma waaye nag jàpp na ni comme gis nag wala ba attekat yi ñoom ñoo xam li ni def tey ñoo ko jàng mën naa am loolee ñu yebbi ci ay kàddu nekk na loo xam ne lu nu la waaye nag dañu xalaatoon bàyyi kii di gonek Cité Keur Gorgui mu delluwaat ca këram defee lépp jàmm lépp di tolloo waaye ba tey tey du tee ñu ñaan jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci Sénégal suturaal ñëpp lépp tegu ci yoon bu ko defee jàmm ak salaam am ñi ngi koy ñaan ci mii réew nga xam ne réew mu war a am jàmm ak salaam la jërë ngeen jëf ànd bi am na solo ñu ngi leen di gërëm